salaamaaleykum euh, chers internautes ñu ngi leen di nuyu di leen dalal euh, tey seen chaîne Sénégo TV mu ngi dalal euh, Habib Niang muy ingénieur géomètre nekk aussi chef de département cadastre de Pikine Guédiawaye mais nekk aussi responsable APR à Thiès monsieur Niang ñu ngi leen nuyu. jërëjëf maa leen di nuyu bu baax di leen sant bu baax di leen gërëm si invitation bi ngeen ma bi ngeen ma defal ma di leen sant bu baax di gërëm ñëpp di aussi tamit ziar toute la population. donc gis nañu euh, bi Pape Diop euh, defee déclaration am que ni day rallier la mouvance donc euh, groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar donc gis nañu bokk nga si njëkk réagir mais ci loolu aussi gis nañu sénégalais yu bëri rafetlu ñu loolu par rapport ak li mu dem rejoindre groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar donc c'est vrai que aussi yéen le fait que ngeen di réjouir donc mën nañ jàpp ni peut-être que dafa. réconforter seen majorité au niveau de l'Assemblée nationale donc euh, man ban jàngat ngañ ci mën a àndil par rapport ak critiques yooyu mu doon euh, recevoir. waaw jërëjëf euh, ma yaakaar naa ni dem ci sawar lool parce que président Pape Diop képp ku xam c'est un homme d'État depuis Ablaye Wade laa mën a wax ku xam ñëpp xam nañu en dehors d'homme d'État c'est un homme d'affaires qui investit en même temps di jàppale askan bi yaakaar naa ne Sénégal yëpp dara kenn réeroo Pape président Pape Diop. Euh, man bu mu defee affaire bi man je pense que je suis le premier d' abord euh, def benn déclaration sant ko si d' abord euh, félicité ko si et puis là je le prends en tant que responsable parce que yaakaar naa li mu def c' est un acte de citoyenneté de patriote parce que Sénégal am na fu ñu toll boo xam ne waruñu bàyyi ce pays mu nekk anarchie waruñu bàyyi ce pays boo xam ne dirigé par des gens xam ne am ñu benn expérience administration amuñu benn expérience d' ñëpp xam nañu Pape Diop quelle que soit la situation avant Macky Sall euh, Pape Diop euh, homme d'État la créé na fi emploi yu bëri liggéey na sekki nekk na président groupe parlementaire nekk na fi président de l'Assemblée national am na occupé de poste yu bëri moi je pense que acte bu Pape Diop c'est acte boo xam ne vraiment à féliciter war nañ ko féliciter parce que tey bu ko bu ko deful woon ni tey dinañ toll instant boo xam ne ce pays ne la ba xam lu gën a bon cohabitation assemblée nationale doo def doo def yi wax na dëgg tey bu amoon cohabitation ne assemblée nationale tey dina benn problème bu am dinañ toog boo xam ne ñu ñëpp xam nañ mu mosuñu toog benn weer boo xam ne fonctionnaire jotu salaire am là il faut vraiment remercier le président de la République remercier aussi tamit le ministre des vraiment là vraiment dañ ko rafetlu bu baax moo tax man bi mu defee vraiment je tiens à le féliciter haut et fort pour dire que maintenant man maa ngi si ginnaawam mais gisoo ne aussi euh, ci beneen côté le phénomène de la transhumance euh, amul lu mu leen yàqal au niveau de la mouvance présidentielle. waaw xam nga aussi euh, problème transhumance dafi yàgg c'est vrai que aussi transhumance balaa muy am yaakaar na il faut faire toujours on dafa dafa laaj benn concertation ak base politique man par exemple bi ma yore un mouvement man national laa yore yaakaar naa à travers le Sénégal tey. président Macky Sall rek moom wax ni que Thiès la mu soxla mais man tey bu ma génnoon yaakaar naa Sénégal yëpp xam nañu. Mhm. boo demoon tey à Fouta boo demoon ba Fatick boo dem ba Ziguinchor. boo dem ba biir Touba. Mhm. am naa fa ay militants yoo xam ne des gens fidèles à Habib Niang xam nañ bu baax a baax bien que man ñëpp xam nañu sama diggante. Mhm. été reçu même par le khalife général des Mourides. Euh, taawam sama xarit la caatam bi macha allah sama xarit la aussi dañ may seetsi. ñoom bi ma def travers Touba moo gën tax ni ma yàlla def sama diggante ak Euh, yaakaar naa ne aussi transhumance buy am tamit rafet na tamit euh, euh, nga waxtaan ak sa base politique parce que man di la wax ni que mouvement national laa yore dama maîtriser sama base politique xamul ni xam nañu aussi yëpp lu may def rek ñoom ñoo ma jox feu vert ni nga wax ñu bañ ñu yëkkat yëpp loo wax loolu nañuy def yaakaar naa aussi tamit bu dara di am tamit rafetoon na aussi nga waxtaan ak nga def man saa yu may def dara damay concerté sama baas politique waxtaan ak ñoom ba pare ba ñu jox ma ndigal ma dem donc loolu aussi dañ koy rafetlu tamit waaw jar na aussi ni koy bàyyi xel tamit. ok parce que si si loolu gis nañu ci am na ñu bëri ñu ñuy transhumé donc suñu mënee cité donc comme euh, Moussa Sy au niveau du pas des parcelles donc gis nañu Bamba Fall aussi gis nañu Idriss Seck mais depuis loolu surtout si diggante ñaari élection yu jot jàll muy locales yi ak législatives yi donc résultat bi ngeen doon yaakaar amu leen ko est-ce que jàpp leen aussi transhumance boobu noonu euh, moo tax. Euh, sanction yooyu xam nga aussi benn affaire sax lu waral dafa am xam nga transhumance mun na am mais je pense aussi parfois sanction bu amee mooy dafa am ce qu'on appelle benn mauvaise concertation moo amul en même laakaar naa ne tamit euh, dugg naa si guur rek ça veut dire que da nga da ni nga meloon bi ngay nekk dans l'opposition noo nga war a gën a mel di jege sa askan. parce que am na ñoo xam ne tey bu leen depuis que le président public euh, jox la ay postes de responsabilité seen militants yi amuñu benn. maanaam benn affinité amatuñu benn kii proximité avec ñoom mm. da nga leen di woo téléphone ça te prend téléphone yow amee diw lu xew ah. donc voilà tey démb ñun la woon tey jox nañ ko dara rek fàtte nañu loolu tamit c'est pas responsable benn côté aussi tamit euh, man dam koy ñaawlu mm-hmm. bokk na si li gën a tax tamit presque ni perte mm. euh, au niveau de Thiès au niveau de Dakar mm-hmm. mooy la proximité envers la population parce que population bi ku leen nekkal ni nekkal la mm. parce que aussi tamit mënuñu jël ay ñitu xam ne ñoom xamuñu leen Euh, kenn xamuñu fu ñu seen cosaan. Mhm. xamuñu lan la ñuy def dans la vie xamuñu tamit seen proximité avec la population ni leen di ni leen di ni leen di leen di def si liste bi donc la population ni ko nangoo parce que tamit une voix ça compte. Mhm. ku nekk aussi sa carte yaa moom. xam nga tey kii bu fi fale te ëllëg si y a problème de responsabilité bu dara war a xam si réew man bokk naa si responsabilité moo tax gars yi bëri tamit bañ a tey tey seen loxo. ok donc parce que mën nañ jàpp comme toujours euh, au niveau de Thiès donc gis nañu aussi euh, si local yi euh, yi jàll defoon nga fa résultat bu am solo donc mais bisa bizarrement si diggante bi élection législative yi ñu jot a génn aussi gis nañu score bi dafa wàcc donc euh, est-ce que est-ce aussi donc euh, c'est pas aussi une façon euh, des Thiessois de sanctionner soit Habib Niang euh, wala aussi euh, sanctionner la mouvance présidentielle parce que Habib Niang n'a pas n'a pas été inscrit dans les waaw côté boobu sax man bu ma amee xaw na ma bett tuuti c'est vrai que def naa si benn waxtaan ak sama militant seeti naa leen ku si nekk bu ab bu mu amee automatiquement je me suis posé la question parce que ma ne ko defoon nañ benn score si élection locale yi pour législative yi. bon les gens ont dit que euh, parce que d' abord si yi d' abord il dit que kon donc euh, ñun joxuñu cër euh, deuxièmement bi tamit ils ont dit que ñi ñi fal c' est des xam ne ñoom xamuñu leen mm-hmm. man jàngat boobu la ma wax ma ne leen quelque que soit la si man sama bopp jour vote bi dem naa taxaw naa même sama buntu centre après au moment dama génn parce que dama doon bañ aussi nekkuma candidat ma génn taxaw mm-hmm. dama doon toog sax les gens veulent dire ana ana ana sa liste mais que non parce que les gens ils la, la photo. de de de de ministre Mimi Touré mhm. la question ma ne non moom mooy président de coalition Benno Bokk Yaakaar y a un problème de euh, euh, de communication boo xam ne moo jàllu avec la population. Mhm. loolu bokk na tamit loolu tamit benn ko tamit euh, je dis que tamit joué si benn rôle. Mhm. parce que man à mon niveau. ba élection yi bu mu desee vingt quatre heures ba deux heures du matin maa ngi exerté wu di si di groupe WhatsApp. di tas par message le, la coordination des jeunes des étudiants des femmes ne leen boo leen demee ni ngeen choisir ba euh, ngeen jël la kii maanaam kii la liste mooy marron bi tête de liste Aminata Tall mo kii moo si nekk Mimi Touré moo si nekk mooy mooy si moo la liste Benno Bokk Yaakaar nag moom mooy président Habib Niang li ñu wax ni moo amee ñun gisuñu si liste gisuñu si si kii bi liste moo jaaxal ma leen non c'est pas important man sama bopp et puis aussi un problème de di ko def si tête de liste tey waroon nañu au moins yëgal Habib Niang mais Habib pas courant mm. après laa ko yëg et puis aussi Habib Niang ñëpp xam nañ tamit au niveau de la zone nord au niveau de Thiès ni ma mel ak population bi mm-hmm. lu quelle que la situation aussi tamit leen population mer nañ si loolu tamit waroon nañu au moins def coordonnateur mm-hmm. de la zone mm-hmm. def lu muy coordonnateur waaw stabiliser au moins mooy wàcc sur le terrain wàcc na sur le terrain sax parce que je me suis ma moyen man ma wàcc dem de fait des des proximités de fait des des petites euh, bon caravanes yu ndaw bi à l'intérieur de Thiès en dehors de Thiès même pour sensibiliser la population sur la liste di benn bokk yaakaar mm-hmm. seulement population yi aussi ñoom seen bopp nee naa comme président Habib Niang nekkul rek ñun aussi du nekk ñiti mm-hmm. aussi doo leen forcer si lenn mm-hmm. mais man li may wax mooy bi ñuy voté ba pare bi ma repré aussi sama base gis naa ñëpp fekk seen ma foofu benn mbir moo leen metti rek mooy quelque que la situation mais président quand tu n'es pas candidat waroon nga nekk au moins si tëdd liste si wala jébbal la defal la coordination au moins. pour nga mun a euh, piloter euh, campagne bi. mais yow personnellement nga ko jëlee bi nga demee ba gis ni sa tour bien que gis nañ nga investir carrément ci mhm. euh, bi mais personnellement naka nga jëlee loolu ko sa sa tour nekkul ci liste. waaw man c'est-à-dire que man bi nga ko yëgee sax xam nga méttiwu ma parce que d' abord je me suis avec le président. Mhm. laaj na ma ma ne ko écoute bon man euh, bugguma nekk euh, député parce que population am na feneen fu may xaare fu dul foofu parce que d'abord un homme social un député mënul nekk un homme social euh, man je suis un homme de terrain un homme bu xam ne toujours ku ma xam dama war a jege askan bi fépp fu askan bi jooytu damay yëkkati sama loxo dem seeti leen waxtaan a ñoom concerté wu am na fi ay problème yu yu xam ne mu ngi xew man maay teg dugg sama tànk même en dehors de Thiès je veux si problème foncier bi ay yeneen yeneen dam si impliqué wu dugg sama loxo ba xam ne ba mu set mais malheureusement toujours day day day day da ngay def lu baax ay ñeneen jaar si suuf yàq li ñu war a yàq yàqal son le président public ñi nga bokkal camp wala. waaw ah non bien sûr ñi nga bokkal camp yàq lu bëri. Hmm. yàq lu bëri parce que bokkal aussi tamit lu gën a tax tamit tey ma xamal la benn sax xam musuma ko wax. Hmm. lu gën a daaneel lu ñu gën a daaneel mooy le problème foncier parce que science te ay doomu aadama hmm. dëkk fenn des années. ñu ñëw di leen génne foofu. ça c'est dangereux des gens aussi dëkk des années le président public joxe yëg affaire bi jox ay institution ferme nee ma nañu régulariser ces gens la parce que parfois aussi tamit ya daan dans l'administration aussi la complicité de l'administration certains gens yoo xam ne aussi dañu bloquer les dossiers bëgguñu aussi affaire bi jàll parce que je pense que le président public bu joxe instruction c'est un décret il faut respecter les les instructions du président public malheureusement te ñu bañ tey seen loxo bu foofu quelque que soit la situation loolu tamit bokk na sama si lii nga xam ne tamit parfois tamit gars yi dañu mere mer ñoom aussi ni def lu ñu war a def. donc gis nañu si diggante boobu ba léegi euh, vous êtes de perdre du terrain de Thiès donc euh, selon yow naka ngeen war a def pour mën a récupérer waat yooyu. waaw li may wax mooy je pense que euh, le président de la na ci tirer ay leçons euh, man waxtaan na ak moom mën ne ko président on a une opposition jeune qui est ñun ñoo mun a defante ak ñoom je pense que dañoo rajeunir la classe politique ak Thiès jël de nouveaux têtes des jeunes pris proche de la population des jeune yoo xam ne tey fu ñu bu Thiès waaye fu seen bët waxuma Sénégal la fu seen bët xonkee ñoom ñu njëkk wàcc le terrain pas des gens xam ne bon vraiment yaa ma gën a xam ils sont ils sont toujours inaccessibles au téléphone des gens xam ne tey ñi dina fi am benn euh, kenn dina fi am benn problème sax ñoom ñu tax di la seetaan parce que y' a aussi des gens xam ne il faut le dire la vérité élection ba élection nañu ñëw si askan bi askan bi aussi dafuñu xam nañ seen bopp ñoom ku fi nekk nañ nekkal la fi. donc yow profil bu gën a mën a. man loolu laa xalaat je pense que aujourd'hui nous avons besoin un profil jeune. ki bu xam ne mooy jàkkaarloo ak ñu fi nekk. parce que ñu fi nekk ñëpp ay xale nañu ay ndaw nañu c'est des jeunes ñu ñoo leen mag ëppale ah ñoo leen mag donc euh, euh, tey li ñu soxle mooy jeune jàkkaarloo ak jeune. donc il faut que le président rajeuniraat euh, sa base rajeuniraat surtout aussi tamit le prochain gouvernement jël ay ndaw yu xam ne loyal fidèle surtout des ndaw xam ne proche de la population parce que comme ni ko waxee ni que le temps file. parce que mën nañ jàpp ni aussi Abdou il est il fait partie de ces jeunes donc il y a aussi Idriss Seck et Augustin Tine euh, au niveau de Thiès donc est-ce que. da nga jàpp ni ñoom ils ont fait leur temps au niveau de Thiès. non je dirais pas ils n'ont pas fait parce que ñoom aussi quelle que la situation ay doomu Thiès nañu. liggéey nañu ñëpp sama ay nawle nañu sama ay frère nañu ah Abdou Mbow macha allah président Abdou Mbow sama rakk la doyen Idriss Seck sama grand la. Euh, Augustin aussi sama grand la vraiment c'est des gens que je respecte beaucoup de partage aussi ils me doivent beaucoup ils me respectent. Mm-hmm. samay xarit ni am na jom mais li may faral di wax rek mooy toujours tamit bu dara xewee si benn dëkk rek. il faut que ñu benn concertation man tey bu ma nekkee si benn euh, benn euh, exemple di jox ma benn poste de responsabilité walla ni jox ma benn euh, benn zone un an deux ans il y a pas de amul amul évolution amul changement je pense que mieux ma jóge foofu bàyyi ñeneen ñi xam ne ñëw yokk defar affaire bi parce que je pense aussi ci Thiessois tamit xamante nañu ñoom seen bopp ñoo bëgg benn mutation ñoo bëgg benn changement comme ni ko waxee nii rek il faut que maintenant le président amaat beneen leadership à Thiès je dirais pas à Thiès ah, mu doon à Dakar mu doon à Guédiawaye mu doon fa nekk beneen leadership bu xam ne waaw profil yi boo xam ne des gens xam ne vraiment qui qui sont aptes maintenant qui sont surtout aussi proches la population ki nga xam ne tey bu population bi sëkkatee rek da di gis waaw surtout affaire inondation yaa ngi nii malgré le terrain jàppale la population tamit même si soo pas si ñi xam ne xamuñu métier bi sax mais am na ay experts yi xam ne tamit Euh, bu ñu leen laajee di xalaat man bu inondation amee quelle que soit la situation mu doon élection bañ élection yëpp damay wàcc le terrain. mais justement si côté boobu aussi côté problème inondation yi donc euh, selon yow qu'est-ce qui ne va pas en surtout par rapport ak milliards yooyu ñu jot a investir. Euh, waaw je pense xam nga inondation je pense que le président public doit prendre des techniciens des gens de la des gens du métier. parce que maa ko wax monsieur le président public ma ne ko monsieur le président vous je pense qu'aujourd'hui ce qu'on doit faire d'abord c'est d'auditer d'abord xool qu'est-ce qui se va qu'est-ce va pas chaque année c'est les mêmes problèmes il y a des solutions et puis il y a de jeunes qui il faut aussi former des gens chaque année aussi forme des plombiers des gens de terrain nga xam ne day dans chaque quartier qui crée des emplois nga xam ne tey bu inondation amee tey balaa ay ñeneen di jóge fee waa comme yooyu njëkk a jóg régler ce problème et puis aussi ñu xool parfois aussi les gens ni ñu du ñu dëkkee la ça cause des problèmes si habitation mu boo dëkkee si bas-fond soit la situation ndox bu ñëwee place ndox mm-hmm. moom ndox la dëkk du changé waaw ndox bu ñëwee day changé moom ñëpp xam nañ Dakar certains quartiers yoo xam ne c'est des quartiers yoo xam ne euh, ni ñu ko tuddee ni kenn fu dëkk mais les gens ils sont en tout cas dëgër nañu bopp ba demande régulariser ñu jox leen ko mais actuellement les consciences sont là. sa mën nañu joxe exemple euh, bi muy joxe au niveau de. zone de captage zone de captage waaw effectivement donc effectivement en tout cas c' était fait pour toutes les eaux usées yëpp toutes les euh, la war foofu pour mun a mm. malheureusement avec la démographie euh, avec tu sais on a une démographie galopante. Mm-hmm. les gens commencent à dëkk mais je pense aussi ñi tam bu ñu dëkk tamit war nañ jël seen précaution parce que toujours dama koy wax Moussa sama benn xarit ma ne ko yaa ngi tabax fii ngay tabaxee c'est un point bas mieux vaut nga gën a avancé nga jël un géomètre wala nga jël un ce qu'on nga def un levé topographie balaa ngay tabax waaw nga jël point bu gën a haut mu nekk sa point de zéro pour nga soog a commencer sa fondation e ci bu ko defee xam ne toutes les eaux usées toutes les eaux pluviales bu ñëw automatiquement day jàll parce que je pense que loolu tamit il faut que les techniciens tamit ñu si boppam ñu mun a si di si waxtaan ak le président public mm-hmm. waaw di ko xelal si loolu parce que le président a beaucoup fait il a investi des milliards milliards mm-hmm. ba léegi ça cause de problème tey pour nga dem da dem fenn sax nga gis fa tuyau yaa ngi di valval si ndox fu nekk et puis la population aussi bokk na ah. mm-hmm. ne pas approfondir sur ça. Mhm. il m'a dit que parce que sama kër dafa taa yónnee ma ay vidéo xoolal li sama kër mënu ma jóg di voté ji. dañuy mere nguur dañuy mere ñu fekk c'est pas du nguur gi di ñëw du nguur gi la ëpp ko tamit depuis que euh, les maires sont là les nouveaux maires là mhm. lan lañ fi def posons-nous la question aussi ça c'est important à savoir ñoom bien qu'ils sont impuissants malheureusement mais mun ñu dem leen san état mais nag lan lañ fi def man je me suis posé du lu am rek ngeen il faut que au moins li may faral toujours di wax ay bonne volonté yoo xam ne dañu dëggu dañu gëm seen gox ku si nekk fi nga dëkk bu nekkee def nga fa dara rek coow problème du am. ok donc toujours en politique euh, ñu dugg si beneen cadre muy nomination post premier ministre donc depuis bi ñuy réhabilité post bi donc le président Macky Sall tarde à nommer un premier ministre sono yow euh, yow miy jege président donc so. Euh, lan moo waral euh, yéexaay googu. waaw yéexaay bi saa xam nga aussi le président yaakaar naa ni euh, politique jàll na il faut que aussi les gens reprennent le travail parce que depuis loolu ba léegi boo xoolee le pays ne bouge pas rien yëpp ne teg taxaw. Mm-hmm. Euh, le président public jox na jox waxoon na ni après les élections dina nommer mais aussi te il faut te mu xaar tuuti parce que ñu doog a génn si élection yi même pas je dirais que deux semaines. Mm-hmm. dañ ko may le temps de battement de faire la concertation. bon ama bon si xalaat si sama gis-gis dégg naa mu ngi concerté wu. Mm-hmm. li ñu ñaan rek mooy ki ñu indil rek mu doon quelqu'un bu xam ne euh, bu am savoir vivre boo xam ne nit yi dañ ko déglu kii nga xam ne aussi jege na askan bi. parce que technocrate wala un xam nga présentement moi je suggère que mu jël un technicien mu jël mu jël euh, c'est-à-dire que je veux dire euh, un homme politique. Mm-hmm. responsable et puis loyal à lui-même le président public. parce que on est à 18 des élections présidentielles il faut que le président pose des pour que la population xam ne population yi sax merewuñu président Macky Sall xam nañu le président en train de poser te mu ngi liggéey si wàllu infrastructure fu nekk peut-être nag fu muy def fu muy liggéey liggéey aussi parfois du am ay ay rëq-rëq yu ndaw rëq yu ndax yooyu président toujours koy rappelé boo xoolee en cause des ministres il donne des instructions des instructions des malheureusement ñu bëri aussi président boo xee su bëggoon ah dañuy tourner la page a dañ moo tax ni ngi koy ñaan fi ñome dafa jël ay des gens responsables des gens loyaux des nga xam ne des gens de terrain surtout. mais yan genre ah. profil yooyu proposé en fait pour les pour les euh, pour le nouveau gouvernement. waaw mais il faut que gouvernement naka prendre des des des, des techniciens surtout des techniciens aussi. de mm-hmm. des techniciens important ku si nekk gox bu si nekk nga xool si y a des bons nga jël leen ni mun a liggéey si gox bi waaw loolu laa mën ok donc euh, installation assemblée nationale aussi bientôt donc euh, ak. Euh, bien vrai que yéen a majorité donc te majorité boobu c'est gars yi ñu ngi koy discuter bu baax par rapport ak fi ngeen jógee ak fi ngeen dal donc ban analyse nga ci mën a andi. waa loolu moom xam naa du si sori parce que li may ñaan rek mooy ñi nekk Assemblée nationale euh, li may far dox ni ñu bañ a nekk euh, di député yoo xam ne dañu fay nekk di xuloo xeex ngaa yaay xam ne askan bi ñoo fi teg di profiter aussi tamit di féliciter tamit euh, les nouveaux députés ki aussi admis l'ensemble na di la ñaanal rek dañ fi nekkal askan bi ñi bañ fi nekk seen bopp ñi bañ fi nekk di xuloo ni ngaay dañuy fekk nekk si le terrain di xam les réalités en même temps aussi tamit di jege aussi tamit surtout tamit les les hommes euh, les respons les c'est-à-dire que les la population tamit di xam seen méttalu seen ñàkkaarloo seen doléance di ko porter au niveau de l'Assemblée nationale di bañ fa nekk nekk mu doon en tant boo xam ne partisan boobu man si x laa bokk x rek laa nekk laa lu wax loolu laay def non non non dañuy doon ay député yoo xam ne di peuple mm. di les députés xam ne bu ñu nekk assemblée nationale tamit yëpp lu ñu gis xam ne dëkk bi doxul nañ si constaté nañ si waxtaan défendre les intérêts de la population parce que ñun loolu moo tax gars yi teg leen foofu. sëñ ñu ngi si jeexantalu émission bi mais am mën bëgg naa am benn question mu la poser donc bientôt 2024 fin président Macky Sall donc euh, que va faire Habib Niang une fois jógee si nguur gi. waaw man xam nga sax euh, ñaan ma yàlla président jóge fii parce que euh, président il est en de poser des actes ñëpp xam nañu. sama loyauté sama fidélité envers le président démb rek am na ku ma setsi si benn kilifa bu xam ne moom bokkuñu kan sax mais sama xarit na parce que ñoo samay xarit nañu ñi nga xam ne ñoo jàngandoo woon sax on a fait le lycée Blaise Diagne ensemble on a fait caisse euh, ensemble am na fu mu leen di xelal lu bëri donc euh, euh, liggéey ni aussi dans le dans le privé boo après man ma dem dans l'administration voilà donc euh, li may wax mooy ni ne ma bu président amoon fukk ñu mel ni comme yow je pense que tey du am problème bi parce que loyauté fidélité man pour le moment je garde toujours sama amour sama xol si le président Macky Sall. ah mais tôt na fi jóge. waaw mais quelle que soit la situation man de ndigalam laa nekk je suis toujours aussi son proche son collaborateur je dirais même son talibé. Euh, mën nañ jàpp euh, est-ce que Habib am na xelu rejoindre soit Yewwi wala coalition eh, yaakaar naa ne loolu xel du ko nangu sax xel du ko nangu man ma créé sama parti demal sama bopp mooy di dem di ànd gaay yi. ngeen ànd di ànd di ànd Yewwi wala di ànd wàllu Sénégal xale ñaa xalaatu ko jamais. créer sama sama sa sama bopp moo ma gënal que ma ànd ces gens là wala ma dem rejoindre keneen moo gën ànd ñii. xam nga une fois Sonko par exemple su nekkoon président 2024. waaw mais xam nga aussi bu fi même bu fi nekkoon président tamit on sait jamais xalaatuñu ko xalaatuma ko sama bopp. Mm-hmm. mais quel que soit où fi l'expertise est là ñu ngi fii yore suñu base politique. di amal njëriñ askan bi quelle que soit la situation mi ngi amal njëriñ askan bi di jege askan bi di waxtaan ak ñoom di concert ak ñoom et puis di wàcce suñu bopp bu boobaa nag dinañu xam ni def. ok ñu ngi dalaloon euh, chers internautes Habib Niang muy ingénieur ñu fàttali leen muy ingénieur euh, géomètre euh, nekk chef du département cadastre de Pikine Guédiawaye nekk aussi responsable APR Thiès Habib Niang ñu ngi lay bàyyi nga tàggatoo. waaw jërëjëf maa leen di sant baax di leen gërëm dafa fekk émission bi xaw ma kii aw tuuti. nekkoo si yooyu yitte ndeysaan sama benn dëkkandoo tey ndeysaan moo décédé tey tey dañuy def euh, sarax yi moo waroon ñëw nag maa fa waroon njëkk. Mm. parce que man aussi comme ni ma xam rek si wàllu ku jege askan bi laa ku jege sama dëkkandoo laa. Mm. Euh, ndeysaan euh, ku baax ndeysaan ku amul yërmande ma di ko ñaan yàlla ko yàlla yërëm ku yëg nit ku may faral di conseil aussi saa yu xëy bu génn këram sama kër lay ñëw di ma conseil waxtaan ak man ndeysaan si lii. tamit di baalu ak ñëpp di ziar waa Thiès di ziar waa Sénégal di leen wax ni élection nañ jógee ñu ngi si benn réflexion profonde incha allah rabbi fan yi néew encore danañu delluwaat si base yi waxtaan ak ñoom xool nu ñu ni ñu profité incha allah rabbi si kanam. kanam ñu ngi lay jaajëfal jërëjëf merci merci.